alhamdulilahi rabbil alamin mbokk mi nga xam ne dafa laaj mu ne dafa bëgg a xam jigéen jàmbur bu jigéen jox loxo jàmbur bu góor lan mooy àtteem naka noonu wéet jigéeni jàmbur wéet ak góor goo xam ne ab jàmbur la ci moom lan mooy àtteem mu ne ndax dafay liggéeye ci béréb boo xam ne ñaar yooyu de moom da koy faral di def lu bari ngir béréb booba muy liggéeyee ngir tontu loolu dañuy wax ne jàmbur bu jigéen jox loxo jàmbur bu góor loola dafa xaram loolu dafa xaraam sunu yaay Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta jox loxo jàmbur bu jigéen mukk jigéen ñi buñ daan ñëw di jaayanteek moom da daan jaayanteeg ñoom ci wax waaye daawul jaayanteeg ñoom ci jox leen loxo comme ni mu ko daan def ak góor ñi loola di wane ni kon euh, loola lu xaram la daganul julit bu góor di laal yaramu julit bu jigéen boo xam ne ab jàmbur la ci moom naka noonu jigéen ji ci jàmbur bu góor bi kon loola lu leer la loo xam ne luy wane ne daganul naka noonu wéet jàmbur bu góor wéet ak jàmbur bu jigéen loola daganul ci lu dul darura darura mooy loo xam ne lu mënta ñàkk te darura moom comme niñ ko xame mooy lu mënta ñàkk day daganal lu ñu tere su fekkonte ne eh, jàmbur bu góor a ngi nii gis na jàmbur bu jigéen buy loru lu mel ne muy lab bu boobaa dagan na mu daw mu dee mën naa fey mu dem daal di koy sauver jàpp ko génnee ci biti ba mu mucc ba bakkanam mucc loola lu mënta ñàkk la ndax bu ko bàyyee day loru te mën na koo dimbali kon bu boobaa laal googa mu koy laal kenn du ne dafa xaraam ndax lu munta ñàkk la te lu munta ñàkk day daganal lu ñu tere comme niñ ko xame loolu moom lañuy wax ci wéetaay bi bu dee lu munta ñàkk la lu mel ne doctor bi nga xamante ne dafay faj te fi muy fajee ki muy faj munul ñàkk ngir mu wéet ak moom comme ñi nga xamante ne ay jàmbur yu góor la di nekk bolog di opéré jàmbur bu jigéen boobu mën nañoo wéet ak moom foofa waaye wéet googa muy wéet ak moom foofa du caagante ne lu xaraam lay doon ndax loolu lu munta ñàkk la luy firndeel ne wéet diggante jàmbur bu góor ak bu jigéen daganul yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ne amul benn jàmbur bu góor buy wéet ab jàmbur bu jigéen lu dul na seytaane leen di ñetteel lu dul ne seytaane moo leen di ñetteel loola lu muy firi moo di ne loola mën naa am lu mu jur njombe lu rëy na ngeen ko wattandiku bu leen ko def kon loola xabaar la boo xamante ne dafa làmboo ak tere bu leen ko def ndax bu ngeen ko defee seytaane leen di ñetteel te lu ne mën na caa juddoo lu ne mën na caa xewe kon loola lay firi kon nit ki bu dee mi ngi liggéey ci béréb boo xamante ne ay góor dañ faa ne na fexe ba bu mu wéet ak kenn ci ñoom ci lu dul lu mënta ñàkk comme niñ ko waxee woon waaye na fexe ba bu mu jox loxo kenn ci ñoom ndax diineem moo ko sant loolu te loolu bu ko nit ñi xasee ba xam ci yow ne ah li sa sa diine kat yow da nga koo fonk fonk gu toll ne doo ko xëtt ngir ruus kenn wala ngirub liggéey wala yu mel noonu bu boobaa nit ñi dañ lay dañ lay daal di may jàmm nag bu ko defee ñu xam ne ah diw sàngam mii kat du joxe loxo ndax diineem nanguwu ko bu dee bokkook ñoom diine bu doo yéen a bokk diine te xamuñu àtte ba loola dana nekk ak soññi ci ñoom ngir mu xamal leen àtte bi ku ca nar a ngàññi nga xamal ko ne ko ah maag yow kat bu dee ñoo bokk diine sunu diine dafa tere lii firnde laa ngi nii loolu dong moo tax ma di ko def waaye du tuutal la du xeeb la te diine ji moom ñun ñëpp ñoo ci bokk yem kenn sañu koo xët attey borom bi tabaraka wa taala la bu ko defee da nga mën a dund ak ñoom ci souple da mën a dund ak ñoom ci ak euh, dëgër ci sa pas te du tee la ngay liggéey nga liggéey ko na mu ware na ngay jëflanteeg ña ngay liggéeyandool it ku nekk nga jox ko ak xam ci kemuk la nga xamante ne loolu la sharia rëdd wallahu taala aalam